Kaffrine jóge Kaffrine dem fanaani Tamba xëy dem Kolda euh, def Kolda ñetti fan jóge fa jaar jàlle Marari jaar euh, nu Diaobé marché Diaobé nga xam ne dañ ko tëjoon jóge fa jaru croisement jaaru ba dugg biir Gàmbi génn feeg fa lewaat ko toog Nioro ba ñëwaat Ndakaaru mais Pape Cheikh man li ma gis man daf ma tiital parce que Dakar sax soo génnee ci mbedd yi di nga gis ñëpp di sal masque ñëpp da nga leen gis ñu sol masque xaw ma dañ koy sol pour daw feebar bi wala dañ koy sol pour bañ ko leen jàpp xam nga loolu dafa am gi nga oto yi ñuy dawal nit ñi dañuy dagg assurance pour bañ policier bi jàpp leen wala dañuy dagg assurance parce que dañoo war a dagg assurance kon gars yi dañuy takk masque pour bañ policier bi jàpp gars yi jàpp leen amaan leen ou bien dañuy sol masque yi pour moytu feebar bi mais li ma gis dans les régions ci surtout ci village yi Pape man tiital na ma parce que nit ñi am na ñi ngay dajeel dañuy yor masque def ko seen poche jigéen ñi yor masque def seen saak am ñoo xam ne si yorul sax faf sa faf masque bi ñii gëm nañu feebar bi ñii gënuñu fee gëmuñu feebar bi Dakar daal soo fi ñëwee di nga gis ne ñi nit ñi ñu ci ëpp gëm nañ ni feebar baa ngi fii ba ñi ngi xaw a xaw a moytu mais li ci fekk waa Ndakaaru fekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ji ñi ci ñi ci ñi ci ñi ci région yi surtout soo demee nga xam ne moom moo di ville yi soo seetloo ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne dañoo nekk ci yenn dëkk yi su nu indee ay masque ak ay gel dañ koy indi ci commune bi euh, ci dëkk bu mag bi mais dama defe ñi koy séddale dañuy fàtte ñi ci village yi te xamuñu ni ñi ci village yi dañuy xëy suba ñëw ci commune bi ndugg marché delluwaat donc su feebar bi nekkee ci biir commune bi tout le temps nanga nga xaar de ki jóge village mën na koo ñëw jëlee ko ci commune bi yóbbu ko seen village moo tax euh, maa ngi koy wax léegi Oustaz Aran Assane ak euh, Aba Barki démb ma ni autorisation yi nar a joxe pour Korité gi bi ma demee ba ñëw loolu laa njëkk wax ci rajo bi ci abaa mi woon toog ma ne autorisation yi nar a joxe pour korite gi suñ ko joxee ci korite gi Sénégal ñëpp dinañ ko dinañ dinañ jël jël jël feebar bi gars yi ni ma laaj ma. ñu ko joxe délivrance bi dakkal nañu ko à partir tey bi 21 heures jotee. voilà abaa mi ngi ma koy wax naan ma yow xanaa gars dañoo dégg sa dégg dégg li nga wax. parce que tey jii soo soo soo fekkee da nga jóge fii dem seen village mën ngaa yóbbaale feebar bi wala sooy ñibbi li nga indaale ko. Mm-hmm. Sénégal ni ñuy jullee korité foo toog mën ngaa korité su fekkee mm-hmm. sa yaay dafa nekk dëkk ba lijjanti li ngay lijjanti yónnee ko ko te toog fii julli mm-hmm. loolu xam naa ni oustaz dina ci ñëw xool ba xam nit mën naa toog biir këram julli julli julli julli itam wala mën lool mën na nekk wala mën mënu nekk mais daal li nga xam ne moom laa gis sur le terrain Dakar ba croisement Diaroumbe Dakar ba Kolda dakaar ba Tambacounda li ma gis man dalul sama xel wax dëgg yàlla suñu defaraatul toogaay waxoon naa fi tamit ni leen suñu changé wul suñu comportement yi feebar bi dina fi tabaskee waxuma la sax tabaskee waaye dina fi 31 décembre parce que suñu comportement yi ñu ma gis ci dëkk bi wax dëgg yàlla tiital na man tiital na ma man. ku xamu mhm. ku tiitul waaye man tiit naa ci. Mhm. Euh, Alaaji Baye Cheikh. voilà euh, dama foogoon ni am na loon ci mën a woon sax. waaw am na def nañ def naa ci benn reportage. te tegoo ko yow it. waaw reportage bi mi ngeeg euh, Apulaay su fekkee pare na mën nga ko jox askan wi ñu xool ba xam à l'intérieur du pays respecté.